asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi fii ci lycée Mbacké ci li nga xamante ni moo di baccalauréat année 2024 ñu taxaw ak ki nga xamante ni moo di Samba Seck dañu ngi def rek lu dul jox ko sunu micro mu tàbbal ci ay kàddu wax ñu mbir mi naka la demee. awusu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñi leen di nuyu bu baax te di leen ziare di ziare bu baax site bi nga xam ne ñoo teew fii di leen sant bu baax. di rafet lu baax baax seen teewaay waaw foofu moom dañ ci sant bu baax affaire yi jëlee ñu kaw bu baax a baax waaye doole sant yàlla rek nga xam ne lépp yàlla la ñi ci am kontaan bu baax a baax di ñaan ñi nga xam ne suñ borom jàll ne leen deuxième tour suñ borom teg leen loxo gën na la woyofal mbir yi bu baax a baax ñi nga xamante ni suñ borom dogal na amuñu suñ ñu ànd ak muñ te xam ne lii rek la ko suñ borom bëggee suñ borom moom du def lu gënul lu mu def rek loolu mu fekk moo gën kon ñu ngi leen koy bàyyi euh, baax. waaw Samba naka nga gisee épreuve yi ren soit difficile na wala genre tane na par rapport ak daaw wala. épreuve moom yomb na bu baax a baax yomb na moom yomb na trop yomb na trop yomb na trop par rapport ak yi fi jàlloon yomb nañ ko bu baax a baax gis nañ ni ni ci gaa yi jàppee bu baax a baax te xam naa ne koo xam ne suñ borom dogaloon nga nga doon jàng it kon boo si ñëwee ci génn bu baax a baax kon kon sant nañ bu baax a baax rafet nañ bu baax a baax kii bi rafet na bu baax yomb na trop. mbokk internet yi ñoo ngi fi lycée Mbacké ci euh, proclamation résultat bac euh, année 2024 ñu taxaw ak euh, Abo moom kenn la ci candidat yi nga xamante ni am nañ Abo naka nga ñuy décrire sa mbégte ginnaaw bi nga xamante ni am nga. waaw am nañ ci mbettal loolu parce que. série 14 comment dirais je 32 loolu mu def ñaaw na ndax ay xale yu ñëw def fii bac après nga leen ay nian admet ñaa deuxième tour même premier tour second tour xam nga loolu loolu dafa ñaaw a ah, loolu ñu ko joxool ndax ku jàng neuf mois au moins war ko koo mel ne encouragé tuuti mais nga jël deux listes ko nian loolu loolu seen honte c'est dafa ñaaw waaw ma doon tuuti. continuer ci li ñu nekkoon rek euh, ñu taxawaat ak beneen candidat mi ngi tudd Thierno Sow mi ngi nekkoon euh, L2 kon euh, dañuy def lu dul dëpp suñuy micro. waaw salaamaaleykum jaar naa leen maa ngi leen ziar bu baax a baax a baax affaire moom donte affaire moom def nañ mais yàlla dogal nañ ñun moom amuñu quoi mais dañuy delloo sant yàlla bu baax a baax xam ni yàlla mooy mooy nit ñi moom mooy xañ moom mooy xañe quoi. waaw di ñaanal ñi nga xam ne am na mu jig leen ñi nga xam ne ñoo dem deuxième tour ah, ñi gën a góorgóorlu ah, gën a góorgóorlu quoi xam te ne gën a jàngaat ñi nga xam te ne ñi nga xam te ne amuñu ñu jéem a jàngaat bu déwénee incha allah bi incha allah ñu ñu reprendre daal. moom ren baaxul xam na ñëpp xam nañ ne baaxul bien vrai ne baaxul mais sant yàlla rek ñu yàlla may mu jig leen ñi nga xamante ni dañoo dem deuxième tour yàlla baax na yàlla mi ngi fi ba tey. ñi war a def déwén aussi comme ñun yàlla nañu yàlla may incha allahu bi loolu rek laay wax bag moom saf na trop ñëpp koy jàmbat ku gis seen AGB ak seen yëf xam ne bag bi saf na. waaw euh, ci wàllum épreuve yi moom euh, kii yoon na maanaam euh, xawoon naa saf ci benn côté mais yéen yéen da ngay gis daal comme affaire yi dara dara doon ki lu exceptionnel. da ngay ñëw fekk yenn épreuve yi day doon yu yomb nga ñëwaat dékkaat fee day ñëwaat ak boo xamee ne day xaw a kii maam daal baaxoon na daal dafa digg doomu. mu mel ne comme chaque année dañ koy nemmee ko dafay am euh, décalage ci euh, entre euh, résultats yi dañ koy joxe kon da ngay gis seen yenn camarades yi ngeen xamante ni ñoo njëkk a jël seen ay résultats di ñëw di leen soutenir est-ce que loolu du nekk loo xamante ne dafay nekk benn pression supplémentaire bu buy tegu ci seen kaw encore. non par contre loolu daf ñuy daf ñuy daf ñuy motiver. di ñu gën a may courage parce que liñ gisaguñ ci ay résultats amul ci benn résultat boo xam ne négatif na euh, liñ jotaguñ lépp ci ay résultats da ngay xool taux euh, taux bi su admission bi da ngay gis ne dafa dafa kawe lool euh, moo tax daane ko bu ñuy kii rek dañuy gis ne kon am na nu muy demee résultat yi fiñ fiñ yaakaaroon daal di dinañ ko fa fekk bu neexee yàlla. par rapport ak ni nga gisee épreuve yi ren ak résultats yi ni mu jotagun a déroulé est-ce que am nga yaakaar. oui bien sûr am nañ yaakaar wax dëgg yàlla xam na ñaan yàlla daal la ñuy def waaye daal wax dëgg yàlla moom yaakaar moom ko ban conseil ngay jox sa rak yi nga xamante ni ñëwaguñ te ñu war a euh, jànkonteel ak euh, expérience bu mel nii. waaw loolu mooy di def ndànk rek toujours moom daanaka loolu lañ ñi ñu fi jiit loolu la ñu daa wax. ñu nit kon ñi nga xamee ne ñun ñoo leen ci jiitu am nañ expérience bi peut-être li ñu leen mën a wax rek mooy nañ def ndànk euh, euh, daanaka su ma sukkandikoo ci liñ ñu laaj ren dama naan benn laaj du génn euh, programme kon boo concentré woo ci sa programme rek boo ñëwaatee ci kii bi amul leen loo xamee ne lu lay jaaxal la ndax li nga gis li nga gisoon jàngoon ko moom ngay moom ngay répondre daanaka dara génnul programme